19, COVID 19, COVID 19. Everything is COVID 19. Uh, ah, COVID 19. I, I guess if for who? Corona bye bye. Hmm? You for do bye bye now, Corona. You for do bye bye. you for do bye bye now. You don't do. Do bye bye. Eh eh. Um, ah, okay, salam alaikum. <laughs> Jadi pada yang beneen yoon. Sahel Network TV lah, Gambia Banjul wala Banjul Gambia. Banjul Wali Mbay anti Ada anti Aisyah, sama nyari daanaa di sini. xale yi moom macha allah taarikalla taarikalla taarikalla taarikalla moom moom mooy loolu. Uh, we have something concerning this COVID 19. I'm so tired with COVID 19. I guess COVID 19 is tired as well and go home. Uh, Bakau is now the focus of fighting COVID 19 in the Gambia. The health minister conducted a massive COVID 19 simple collection exercise in the town. But even with all this, there are Gambians who still believe that coronavirus is not real mm-hmm. and it is just the trick of the government to collect funds from international donors. COVID-19 is real, for your information. Let's see preventing, uh, preventive measures. Wash your hands regularly, wear face mask in public, and keep social distances. Maintain public gathering. Which is very important. Stop go marriage. No. <laughs> Naming ceremony. No. Gamo. No. Daira. No. Church. No. Mask, Nothing. Bye bye COVID 19. You should go now. Bye Bakau. Bakau, bakau, bakau. Wali, you stop in the blue world ñuy dem ba Mbakka di fa war def test. waaw dañu wax ne kenn kenn ci juróom wax dafa am bu dëkk so kër yi mu dugg koñ yi mu dugg ñooñu itam kër yi ñu dugg ñooñu itam koñ dama teel a mën a ñu teel a fere. exactement so mooy mooy li nga la dafa doy def ay ñu fagaru bi di hmm. COVID-19 parce que Mbakka dafa nekk dëkk de fapt, de fapt rabit. Să o seje. Nu, rid na koja. Je ufunulo se nije neka. Wow, tam je tam je bilo njime mokana jest. Ma njo se ti ada. Nu ka ada do mogu mi mene se oko wa. Nije ma to ko buno no wa pan ben xamul naka la jagal. Ko tax ma bo di wa ba kawe. Ne ngira mi dem tes ñu xol. Ni jangal mu sa bokay ni ngay bañ tes bi de. Ah, waaw, waaye dina la tamit am na ñoo xam ne. Waaw, nit ñaa ngi gën waaye am na ñoo xamante ne nangu ñu tëjee nag tamit. def test bi. waaw soo fu mu nekk nii daal yëf yi nekk comme doo mën a toog doo ne waa gars yi ñoo def nii bu kenn ragal affaire si doo ko ragal noonu noonu ba lor sa boppam lor sa ay dëkkandoor. te jombu euh, waaw jombu kenn nekkul feebari gàcce. Mm. Euh, mun naa dal ku nekk. Mana day taane yal nañu si yàlla musal te yal nañu si déggandoo yi waaye tamit ñuy ñaan askan bi na nit ñi génn nañ dem def seen test yi su ko defee ñu mun a aar seen bopp suturaal seen bopp suturaal ñeneen dem def test bi te óor na la ku ko am méngoo woon nga ak moom demal ngir yàlla wala nga call one two zero one two five nga dem fa wala nga sut waaw wala nga one one zero two five sa bopp nga jóg naka dem fa ne leen demal de lii laa nekk di yëg waaw kenn du la xamal nga dem nga def kaw sutura kenn fois da nga ko am parce que duñ dee récolter kenn ku ko am. waaye soo gisee moo tax ñu ne ku dee yaa tàgge sa bopp waaye nga war a toog bala ngay di ñëw jël. soo a dem kii nit ki ko seetaan loolu dafa nekk lu rafet. kon nag xalaat boobu noonu dañ war a génne suñu xale gëmul leen ne coronavirus am na suñ leen ko waxee tam war ngeen ko waaye lu nekk rek. dangeen tele daf ko war a wane wala lii dafa war a am wala lii dafa war a am wax nañ la number of case wax nañ la naka ngay def pour fagaru si jàngoro bi kon nag fagaru waaw loolu loolu loolu moom am na moom waaye xam nga aduna bi léegi man loolu laa di faral di wax aduna ah, bi léegi man loolu laa di faral di wax nit ñi ah, dafa ma jaaxal daal maanaam tey lu nekk rek vidéo nañ ko dugal Facebook. vidéo nañ ko dugal social <laughs> media. te bis bu ñu dee sax ñu ngi koy caméra am na ñu ngi koy jubal. donc bu bu njëkkaan ba su nit di dee dañ ngaa daw dem dimbale ko mm-hmm. waaye léegi bu nit di dee rek koo vidéo <laughs> waaw si lu am dugal ko social media di wane ni moo dee léegi boo amee ni nga solo pare nga soog a xalaat fekk ko ku dee la mm-hmm. ah man daal man daal man daal anyway li may ñaan daal mooy ne ñëpp génn surtout waa Bakau ne ñëpp génn ñu dem testi mm-hmm. parce que test bi dafa am solo lool waaw test bi dafa am solo nañ génn ñu dem testi test gi nekkul ne ba pare nañ bàyyi xel ne coronavirus ko am nekkul dee mm-hmm. loolu nit ñi nañ ko du càggee boo ko amee rek dee nga déedéet bari na ñaata junne doomu aadama am nañ ko te wér nañ ñibbi nañ seen kër yi soo xamoon gars yi daal euh, lii daa moom dama leen indil tey daal moom ah gars yi waaw covid 19 covid 19 please I beg you make you dey go please come for our wall dama la sikaral de. te ku ñëw tufli nga tooy na fu mu nekk nii tooy na xep xep xep taw la de. corona bye bye. it's just corona bye mm-hmm. bye.